الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره سبحانه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله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 umpale wut ne ñi ngi dëgmal ak tànn tànn nag yàlla moo ko mooñaale ak suñuy jëmm ak suñu baax moom moomu subhanahu wa taala day faral di tànn ndax moo wax ci alquran ne euh, ya muhammad sa boroom moo bind lépp li nga gis ak li nga gut li nga xam ak li nga xamagut ci coobareem rekk nag amul lenn lu ko géttan ba tax mënu koo ñàkk a def ci coobareem lay dox coobareem jooju muy dox nag ci la ko soobe muy tànn ci biir mbindeefam yi bu ñu ko settantalee danañ ci gis waxdaaniya gim wéetoo moom kepp gim jagoo doon kenn ndax nit ñi bari nañu lool di ñu weex ak ñu ñuul ak ñu ne ci diggante bi waaye wéet gu suñu boroom wéet di kenn da caa feeñ fés ca li nit ñi nuroo nuroo ak li ñu tolloo tolloo kenn nuroowut ak moroomam euh, loolu ci kànnam la bokk su aw nit nekkee ci barab lu coow la bari bari ña ca xam ku ca reesax sax nga xàmmee tànn suñu borom waaye ci biir jëmmi nit ki tànnaat na ca ay melokaan yoo xam ne nit ki ci boppam mën na koo seetlu ci jëmmam xam ne ay waaraamam am na ko wuute suñu borom waaye moom gi moom lépp ak xereñ gi xereñ lépp xam lépp ak kattanam it daf ciy feeñ kon boog bu aw nit jógee bëgg a tànn tànn lu jafe la yàlla rek moo ko jagoo jafe-jafe bi ci nekk nag saa su nekk njuumte mën na cee am bala ma agsi ci xaw ga yaatal tuuti ñu ndokkeel suñu mbokkum jullit moo xam ne jëfam jë day ñëw ci jamono juñ ko soxlaa lool moo ne dëkkut ci réew mi de waaye réew yi ñu dendal la dëkk nga xam ne ba démb dee démb dawuñ ñu xàmmee ba fii mu ne nii sax léeg-léeg nga gis ku solu romb lay dem nga defee ni diw la waaye su waxee nga xam ne du diw ca col ma ca melokaan wa ak defin wa tanuk suñu borom feeñaat ca moom moomu nag imaam la tudd Muhammad Dikko Muhammad Dikko moom li def ba tax ñu di ko waxtaane ci barabi suñu borom yi dafa firi bayitu sëñ bu mag bi mu bu yàgg bokk yi kooku ana lu mu def daa amoon aw xew woo xam ne ci ay bis bii dong la bii ñu génn nguur jël alal ju takku def ko ci ab sikaare am na sax lim buñ tudd lim boo xam ne ku xam réew moomu na mel nga xam ne daanaka sore wut ak ñun kàttan ku ñu ko jox nga xool xoolaat ne baax na jël leen loola lu mat a waxtaane la euh, li siiw daal jërut may tudd lim ba waaye mën na dara dañ ko ko indil mu ne lu lu tax ñu ne ko nguur moo la ko jàppalee ci xew bi ngay waajal mu ne xew bi de waaj naa ko ba noppi dem leen seet ñi ko gën a yittewoo ngeen jox leen ko kooku day euh, kuréel bu mag ñu koy tuddee al majlisul ala li shuun al islamiyya la jiite xawma ñu ko tànn waaye mën nañoo tànn ñoom xawma ñu ko tànn waaye ñu mën a tànn nga noonee jamono ji ñu toll ku jox lim bu toll noonu nga ne nga xool diggante sa digganteek sa borom xam ne man nga waaj nga ba jekk am na ñeneen ñoo xam ne ñoom soxla nañ ko nga ne dama yit ko ñooñee koy jàngal na ñëpp lu Sëñ Tuubaa bindoon Sëñ Tuubaa daa bindoon ne katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abid al maai wa tiini li féeg maa ngi noyyi di xàmmee sama tur sama loxo lii moom duma ko tàllal kenn di ko ñaan leen waxantumaak nag koo xam ne day falu di folliku te léeg-léeg mu dem ba jàpp ne falu na te du folliku mukk te moo ne moo ñun ñoo bokk cosaan abidil ma i watti ni dong lañ kooke yàlla na ko yàlla fay ñu mën a tànn nga noone bokk yi nag tànn kon am na jafe-jafe am na jafe-jafe ñii ñëw naan tànn leen ñu ñoom euh, lañuy fas ci seen biir ba tax ñu bëgg ñu tànn leen ñoo ko xam waaye ña leen di tànn ñoom am nañ jafe-jafe bu rëy ci kan lañ ciy tànn ci ñoom kee daal moom xawma ñu ko tànn waaye tànn ñu mën a tànn lañ moom ñu rafetu tànn lañ ndax su demee suñu demee ba ca grise tuuti guy moo ko yàlla képp ak alal ci biirum néeg mu nangu ko delloo te yàlla tax te xam la tax ñu tànn ko moo tax ci tànn gi suñu borom ñu tànn malaayika yi ikam yi nga xam ne ci waawam lañuy xëy suba ngoor ngoon am na ci ñum tànn ñu gën koo jege waaye ci biir nit ñi tànnaat na ci ñoo xam ne ñoom la yebal ci ñun rawante nañ ay daraja waaye téewul kenn ku nekk ak tànn moo ko ci boole ci biir ñoo it mu tànnaat ci ñoo xam ne seen tur feeñ na ci alxuraan ñi ne ñaar fukk ak juróom la ñi ne juróom benn ñi ne ñaar fukk ak ñeent ñooña mu tànnaat ca juróom ñoo xam ne ñoo ëpp daraja ñooña fuuf tànnaat ci seen juróom ñooña kenn koo xam ne moom du seen moroom du seen màpp kon loolu li muy tegtale mooy xam-xam bi ak xerañ gi gannaaw bu coobare ak kàttan jiitoo suñ la waxee kenn ku ci nekk kam doon da nga xam ne ku mën a tànn nga noonu waaye ñam tànnoon it amu ca kenn koo xam ne lañ ko tànne yàq na ko da ko defar ci biir coobare suñu borom googu ak tànn gi su weesoo doomu aadama yi am na ci biir jur gi ñoo xam ne biir biir jur gi yoo xam ne yii léeg-léeg nga indil leen ay xont yu wuute waaye dañ cay tànn ñoom ci biir jëmmi nit ki ci boppam yi muy lekk ak di ko naan am na ci yoo xam ne moom da koy bëgg waaye yaramam moo ko moo ko tànnut yaramam moo tànnul loola su koy jëfandikoo rek day tàmbalee gis lam koy am na sax kilifa gu ñuy wax ne moo ne woon looy lekk di ko jëfandikoo te sa yaram soxlawu ko dee lekk dee ko jëfandikoo tey faju rek am nañ ñu ne nag loola mënut a doon ay waxam ndax di jëfandikoo di faju moom googu jot xanaa kenn waru koo am daf ko lawal ci mbooleem mbindeefam yi moo tax tànn jafe ñiy wër naan tànn leen ñu nag li ñuy def li ñuy def tudde ko campagne électorale mooy dagaan rek dagaan dagaan ci wolof mooy ku bëgg soxna fi barab su demee fii ba ba muy am desut xam jikkoom ndax buy ñëw waajtaay wa ca war ci am col da koy waaj la ca war am col bu ñu ko waxee tudd nañ mbaxana tudd ay dal ci jamono jii sax téléphone bi muy ŋàbbu daf ko ciy bàyyiwaale xel ba su demee daal ñu xam ne kii moom bokkut ak ña daal ñëw su demee fa muy jëkk tàmbalee bu xoolee ba xam ne kër gi ñu bëgg ay gone lañ gone yi lay jëkkante def di jël lu gone taq-taq suñ ko nee dalay taqal mu ne ah baax na de ndax bàyyi naa fa gone dal koy taf ci boppam ba ñeme ko ñi bëgg gone ñeme ko lool su fekkee kër gu yées këram la bu amul fu mu toog it na ko toog ci suuf fa leen fekk ñu ne ko di sa sa yére yi mu ne ah baax na de bu jógee daal di faxasu te loolu wolof atte woon na ko bu yàgg nee na gana fii baax na saa bu fa jógee fóotlu ji ndax bëgg faa toog amul yéen ci toog fa day dagaan rek su ko defee muy wax lu ñor di wax lu ñorul di nuyu ji mag ña di leen mosal dara sax ba mag ñëpp commencé naan waay waay gi gonee ka yaro waay ak amub yar te araam yàlla xam na ni melut noonu day dagaan rek ñi gën a naqari deret ci kër ga ci aw jigéen ak i waxambaane ak i njegemaar ñooñu lay jëkk a fexe ba am leen ndax wóor na ko ni su leen amee rek jàmm rek a fi xew ñi des moom mën na leen a moom moom waaye bu jógee ci biir ëtt ba ñëw fekk bant ba gaaya toog da leen def ay morom ba ñeme ko suy demit mën na leen bàyyee luñ ataaya donte duñ naan kati ataaya waaye ataaya la koy tudd mën naa fexe sax ba mu doon bañ xam ñoom ataaya naan ataaya lan la ataaya ataaya bañ na ataaya lu mu benn bis mu indi ko fa def ko fa duñ ko nangoo bàyyi waaye nag bis bu jëlee ba bis bi dellu si li muy jëkk a def mooy ñu dëkk ca koñ ba te daa fa ñëw wala mu daan leen nuyu lay jëkk a fakk kum tasel boo ne ku diw naam nangam mu ne yawee kanaati mu ne ko mag diw bokk koñ di mu ne ah waaw koy marxaba ba bañ fàtte ñëpp dagaan wu gi nag am ñu ci des yal na leen yàlla yërëm doonte dogalu suñu borom la suñu borom dogaloon na bu yàgg ne dagaan su amagul rek duñ mën a faatu ñoom muy campagne électorale fii amagul ci at mii ñoom duñ ca faatu duñ faatu dara mënu leen a faat ci diggante bi baa fa jaar yàlla bu mu amaat nag mu mel ne ñu di dagaan laata ñuy saña dagaan am na fuñ jaar ñu tudde ko bàyyale kenn ku nekk day am kuñ la bàyyale su nangoo nga soog a sañ a dagaan loolu nag daa misaal ëllëg àllaaxira ndax bokk yi fii ñii dagaan bu dee ci réew mi la niwuñ kenn soo demut tànn kenn ci ñoom dañ lay teg ay daan ni ko yeneen réew yi def maanaam wate fi daal nokkut lu mënta ñàkk dalay soob rek am na réew yooyu nag sañ bañ la faw nga dem tànn ñi tànn ni ko réew mi tëralee gun kenn suñ cee laaj lu ëpp yaari yoon wenn yoon lay laaj ñu songuli ko songuli mooy sefal nañ ko mu dem ba ci digg ñu dolli ko sefalaat ndax ni muy lekk rafet na waaye bu jeexalee day day war a jox keneen muy yaari yoon képp kenn waru ko fee weesu muy ñetti xeet ñetti xaaj kenn ki mas naa yor bëgg ñu dolliwaat ko ñu sunguli ko am na koo xam ne mas naa yor moom ba mu jógee ci ay loxoom yàgg na mu bëgg caa jotaat kii moom daa bëgg ko dolli kii daa bëgg ko joxaat moom mu yor yor gu yees kii nag moom musta yor ñett ñoo ngi daal mel nañ bu fi amee ñeenteel it xawma ko waaye comme ci man doon daal bu ñu la joxee doo weesu suñu weesu yaar yoon am na nag ab yatteel maanaam li ñuy def nii di tànn kenn ci ñi koy wut mooy bàyyele gi ñu a def rek waaye nag bokk yi bu ñu demee tuuti ëllëg ñiy wax na jëmul fenn fii lay am ëllëg moom faw nit tànn benn kuréel bu muy bokk moo tax tànn jafe na xam ne ki muy tànn fii ëllëg gi si birit lii mu ko joxoon lu ci àtte moom moom ñoo koy bokk ndax ñi ko jàppandal mu mën a yor ci la bokk ëllëg nag mooy troisième tour bi fii deuxième tour rek lay am premier tour deuxième tour